La télévision a pour but de transformer le téléspectateur en consommateur. Mesdames et messieurs, très téléspectateurs de Dakarnet, bonjour ou bonsoir, ça dépend de quel côté du globe vous vous ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci àndandoo bi ngeen ànd ak ñun fii ci biir Dakarnet ak lépp ni mu daal di doxee euh, tey nag dina leen xaw a jaaxal oui parce que dañu daan euh, euh, recevoir suñu invité ci biir studio bi ren tey nag ñu ñëw génne daal di fekk ci ñu ki ñu ki ñu dalal fii ci suñu plateau mu doon une invitée exceptionnelle notre invité aujourd'hui euh, di koo xamante ni il n'est plus à présenter dans le milieu euh, de, de, de la musique sénégalaise mais également euh, dans le milieu de la politique actuellement may wax ak yéen nii ah xaw xaw ci ban ban ban noo laa ci lay présenté Mame Ngor kon en tant que acteur culturel ou bien Mame Ngor en tant que politicien mais lu ci mën a am daal dina leer léegi ci kanam ñu bàyyi ko mu nuyoonteeg euh, ñi nga xam ne ñoo di euh, téléspectateur euh, Dakarnet yi koy seetaan grand salaamaaleykum. maaleykum salaam maa ngi nuyu di nuyu waa Dakarnet di nuyu képp koo xam ni yaa ngi xool émission bii Euh, di profité tamit ci occasion bi di nuyu suma xarit Pape Ngagne bi nga xam ne moom mooy seen seen seen kilifa. Mm-hmm. aja euh, jërëjëf comme noonu euh, la daal di duggee siyaare nan leen nag bu baax yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan di bàyyi xel fii à chaque fois dañ koy wax un reste coaché sur Dakarnet la télévision qui a l'habitude de camper les décors merveilleusement bien partout au Sénégal même à travers le monde tey ñu ngi tëngeej cité Diazaka ci cité Mame Ngor Diazaka fii ñu nekk nii actuellement nii toog nii di wax ak yéen cité lañu ne te cité bi ñu ngi ko tuddee ki nga xam ni tey moom lañu toogal donc yaakaar naa ni am nañu commencé nangu euh, grand dootuñu la wax dootuñu la laaj kan mooy Mame Goor parce que déjà sénégalais yi xam nañu kan mooy Mame Goor euh, li lay laaj d'abord mooy euh, Mame Goor ak politique Mame pour pourquoi mu dugg ci politique. waaw xam nga nag da ma laaj question boo xam ni damay bëgg ñu ma koy laaj tous les jours parce que ñun ñu ngi dëkk ci dëkk boo xam ni dafa bokk ci les premières communes du Sénégal que booy wax Sénégal da wax Dakar. Saint-Louis Rufisque gore ñoo nekk les premières commune du Sénégal ñu ko civilisé njëkk am ay école xam nga lu baax lépp yaakaar naa ni fii la ko nit ñi daan wutsee donc ñu juddoo fi léegi xam na ça fait cinquante ans léegi mu am ko bi ñu juddoo ba léegi mun nañ ñi Saint-Louis dem na gore dem na Ndakaaru dem na mais Rufisque dafa dafa xaw des ginnaaw lu ci lu bari parce yaa ngi may nuyu léegi rek di ma laaj naa man man dama yaakaar ni sax est-ce que maire bi nekk fii si dëkk bi est-ce que nekkul silmaxa yaa ma ci yaa ma <laughs> dégg nga <laughs> explique xam nga yaa ngi may tooñ di ma ko wax xam nga mu nekk loo xam ni dafa metti daf ñuy metti ñun ñi nga xam ni fi lañ dëkk parce que man je suis un artiste d'abord international ñëpp xam ma ci àddina bi may tukki fu nekk ma fay dem mais foo dem dañ lay wax ni la te ñoom dañoo bokk xasaw rek def ko xarit boo nee Tëngéej laa dëkk ñu ne leen xasaw ngeen bokk. def ko xarit. mais pourquoi lu waral lool lu waral mooy on a des élus incompétents. dañu fal ay nit yoo xam ni amuñu vision. parce que dëkk man dama jàpp ni soo koy defar il faut nga def wuti ay partenaires. indi leen ñu financer Tëngéej pour pauvreté extrême moo fi am. on a six kilomètres de littoral géej pour lañ fay def ak xale yi di fa jonkan ñu am course. boo xam ne tey jii waroon nañ ko mën a moderniser yaa mosoo dégg équipe nationale Sénégal boo xam ne amul doomu Tëngéej bu koy toj ñu am mm. ay sportif de haut niveau mm. mais Tëngéej ci wàllu sport ci santé ci infrastructure ci euh, lépp Tëngéej dafa dee. Mm. donc nag loolu moo ñu poussé ñu ne ah comme gars yi dañoo jéem télé mënuñu mun ñi nga xam ni yàlla dimbali ñu nekk ay artistes di bouger lu bari. di dem di xam nga parce que tukki boo ci jëlee alal sax tukki bu bari boo ci amul alal sax di nga am au moins expérience yàlla loolu la ñu dimbale ñu am ay relations extérieures am ay relations intérieures ñu ne nag pourquoi pas mu teg suñu mouvement tuddee ko déclic waxtaan ak waa Rufisque seeti Rufisquois yëpp ak Rufisquoise yi ànd ak ñoom pour defar suñu dëkk parce que il est temps doomu dëkk bi ku juddoo ci dëkk bi yoroo ci dëkk bi màgg ci dëkk bi yàgg défendre couleuru dëkk bi jël dëkk bi defar ko loolu moo ñu pousse ci ñu créer mouvement ni pourquoi pas ñu dugg ci nag jéem a changer Rufisque ah, d' accord da nga créer mouvement bi nga créer mouvement euh, da nga ànd ak président euh, Macky Sall ou bien da nga créer gis ko wala wala yow yaa dem seeti président non xam nga man avant may créer sama mouvement yàlla dogaloon na ma xamanteeg président di ko jàppale ci lu bëri mm. parce que nit koo gis ci àddina dafa am foo war a far nit koo gis mun la amoo fu ma far rek naa fexe la te man je vois que ni ci sama gis-gis man Macky depuis mu jël dëkk bi jàmbaar la mu ngi ñafe di góor góorgóorlu teg ay projet xam nga dëkk ñun rek ñoo nekk dëkk boo xam ne dañuy xaar lépp ci gouvernement réew population moo koy defar bërgi dem laa jóge Dubaï mais Dubaï nit sañul sax yoru moto pënd po bi di ko accélérer di déranger nit yi nit yi dañ correct yaru kenn du dépasser feu xamul wax doo dégg bruit boo demee ba feu da ngay taxaw kenn du sànni muus si mbedd sañoo taxaw kii mais fii Sénégal fu neex waaye teg taabal jaay soo waxee mu ne damay daan sama doole boo ñëwee ndëgër dama lay dëgër pire mun la sama bakkan laa ci teg damay daan sama doole. il faut nit ñi am bàyyi nit ñi ñu am ay espace d'épanouissement population yi il faut que ñoom ñu njëkk a defarwaat. d'abord mais mais mais est-ce que ñooñu est-ce nga xam ni ñooy teg ci tali bi di jaay est-ce que d'abord état am na fu mu euh, euh, am na lu fu mu leen defaral pour dugal leen fa pour mën leen yëkkati foofu. parce que booy jëlee nit fenn da nga koy teg fenn. mais loolu am na xam nga tey yow bi nga juddoo ba léegi yaa ngi dégg marché ngelaw. Mm-hmm. yaa ngi dégg marché Cinq. Mm-hmm. yaa ngi dégg marché Sandaga. yaa ngi dégg marché Gueule Tapée. Mm-hmm. yaa ngi dégg marché Rufisque. mais du nit ki fu la neex rek tey boo dee jaay mun nga dem ci marché bi nga jaay parce que man doomu commerçant la man suma papa day jaay suma yaay di jaay man dama daan jaay marché Tëngéej laa nekkoon di fa jaayee. comprendre la c'est dama lay wax li ma gis ci biti. ni ma gis ci biti dem naa ci ay centres commerciaux fii am na ay centres commerciaux yoo xam nit ñi duñ fa dugg tey ñu boo demee Touba Sandaga am na ñu bëri ñoo xam ne yëg ci biir Touba Sandaga bi jaay ils préfèrent nekk ci kaw tali te loolu civisme la nit ñi ñoo war a am patriotisme defar seen dëkk. loolu soo gisee may wax lii nii dama bëgg pour population yi xam ni dëgg la nguur mën na am ay faay mais tamit population bi il faut ñu góorgóorlu jàppale pouvoir bi mais yow mënoo taxaw di critiquer pouvoir bi toujours te jege ko tali bi nga bëgg a jaayee bu ñu defee centre commercial ne dugg ci biir ngeen su ma fa duggee du ma jarle ci kaw tali bi laay toog te pourtant bu ñëpp duggee ci biir marché bi. nit ñi fekk leen fa est-ce la donc il faut nit ñi ñoo des fois ñoom ñooy xaw a dimbali état tuuti mais nañu bu ñu euh, bu ñu bàyyee loolu yëpp tey jii dañuy retourné waat ci li tax ma duggaat encore une fois ci politique mooy li ma la doon wax mooy ñun tëngeej rek la ñu am bu ñu sañoon man su ma sañoon tëngeej mooy gën a rafet ci àddina bi mais yow mi may interviewé sax xam nga ni tëngeej dafa am problème donc loolu moo ñu poussé ci ñu def politique te nag politique man dama contre sax ñiy wax ni. du ma def politique parce que boo nee du ma def politique kuy def politique def politique gagné di dogal loo xam ne du la neex te doo ci man dara donc dëkk soo ci bokkee da nga war am foo far am foo féete am loo xam ne da koy xeex pour sa gox donc loolu moo tax ma créer déclic bi ñu paree déclic ba pare yàgg a déclaré nag suñu candidature depuis quatre ans ñu ngi ciy liggéey fii ci biir Tëngéej ci gox goxaan yeeg yëpp bi ñu demee ba joxe caution jot ñu dem dugal suñu caution pare defar suñu liste yóbbu ko préfecture donc bokk ci benn coalition boo xam ne mu ngi tudd booloo defar Tëngéej comme defar Tëngéej moo ñu tax a jóg bi ñu xoolee coalition yëpp ñu ne coalition booloo defar Tëngéej daal moo gën a adéquate par rapport ak ñu li ñu bëgg ñu ànd ak ñoom di liggéey mu nekk une vingtaine de euh, formation yoo xam ne ñoo ànd pour jéem a changer euh, ñu gis ni euh, for nañu ci béykat yi maam Góor euh, bëggoon na ànd ak ki nga xam ne moo di Souleymane Ndoye. waaw Souleymane Ndoye ci mu ci ci ci coalition boobu la bokkoon xam nga Souleymane Ndoye moom il est de l'est mm-hmm. man je du nord bi ñu demee ba nga xam ni gis na sama mouvement li muy liggéey ci Tëngéej ak ni ñu taxaw taxawaay bi ñu am ci Tëngéej il s'est déplacé à maintes reprises ñëw seet si ma ñu waxtaan à eh, chaque fois bu ñëwee waxtaan ak man ba pare dama naa kan na ma may ma xalaat mais bi ma demee ba xalaat nii booloo defar Tëngéej moom bi nga xam ne moom ci la may woo moom mu ngi ci waa réew mi ñu ngi ci waa parti yeesal ñu ngi ci AJDPADS ñu ngi ci am na yeneen mouvement set ay mouvement yu bëri yoo xam ne dañuy jóg pour changer Tëngéej parce que xam nañ ñi fi nekk c'est des incompétents ma ne pourquoi pas ma ànd ak moom. ñu ànd liggéey parce que Souleymane Doy tey mënoo ni am na dara lu messager si Tëngéej à part le conseil départemental te conseil départemental xamul li nit ñi xamul mooy budget conseil départemental matul deux cent millions. boo ci fayee salaire conseil départ boo fayee con boo ci fayee boo génnee année bi rek seen budget salaire ñi fay ñi fay conseil yi presque xaalis bi day jeex xam nga lan nga ci def peinture école ak yooyu mais ñi nga xam ne dañ leen jox budget sept milliards. ñu nekk ay maire yor portefeuille Tëngéej amul benn chantier bu mat cent millions kenn gisu fi Tëngéej sax chantier busturu sax gisuñu ko fi kenn gisu fi dara lu ñuy liggéey ci Tëngéej donc ñuy tabax ay cantine jël canal bi tëj ko def ko ay cantine jaay ko. donc loo lan nga jàpp ni mooy cause bi. mais cause bi mooy am ay nit yoo xam ni amuñu ouverture d'esprit te ab dëkk kenn du ko defar ci ay juuti. dëgg la recette municipale yi nga xam ne moom la nit ñi di jël ci ay juuteeg yooyu mën nañ ko teg pour di ci fay salaire yooyu ah, wala ñu dajale ko ñu gisee koo xam ne am na problème ak yooyu ñu dimbali ko mais un maire tey jii boo xoolee acte trois de la décentralisation bi mu amee bu njëkk ba maire yi dañ euh, état daf leen daan jàppale. mais acte bi moom moo tax léegi maire am na droit dem wuti ay partenaires ñëw defar dëkkam mais ay maire yoo xam ne dañuy toog du ñu voyager du ñu tukki ça veut dire que ñoom fu ñu gis. espace poche ak xool suuf jaay def seen poche takk ay jabar. loolu bi nga jàpp la mën a lan la mën a jural Tëngéej ëllëg. mooy mooy pauvreté extrême bi fi am. tey xale yi liggéeyuñu. jigéen ñi dañu sonn tey bu nawet jotee ñaata jigéen nga gis jigéen Tëngéej jigéen ñëpp damm nañ ñëpp am ay fracture bu nawet jotee da gis ñuy dox di dugg ci ay canal def faux pas seen tànk yi damm ñi am foxoj ñu am ay problème parce que boo xoolee Tëngéej nit ñi dañuy fàtte ni ci premier commune yi la bokk tubaab bi dañu defoon ay canalisation yu sew canalisation yooyu bu sewee entre këri kaw këri suuf affaire yooyu bu tawee ndox mi day nekk géej jigéen ñi bu ñuy dem marché di ndugg fu ñuy teg seen tànk duñ ko xam yenn saa yi nga dugal sa tànk fenn mu kepp la nga def ni rek mu ne karak dam ndox mi day masqué loolu voilà donc yooyu dafa nekk yoo xam ne yu ñu metti la te dëgg dëgg neex yàlla bu yàlla jàppale yow jeune nga xam nga ñun ay yàgg nañ dox xam nañ li dëkk li koy doxal tey man dama ni su ma jëlee dëkk bi incha allah le 23 janvier ba gañe à vingt du 24 janvier ba keroog sama mandat jeex te nga jëm dama koy transformer en chantier. te dañ ko war a liggéeyaat. ok dinañ ñëw foofu mais laataa ñu ñëw foofu euh, euh, joxe nañu cause bi nga xam ni euh, wax nga ko ni Tëngéej loolu actuellement noonu la nekkee joxe nañu conséquence donc léegi nag da nga jàpp ni loolu yëpp en résumé lan mooy solution wu Tëngéej. solution bi moom mooy xam nga ñun yàlla daf ñu dimbali comme ni ma koy waxee léegi am nañ budget. budget bi ñu am mën nga am loo ci utiliser mais mën nga dem wuti ay partenaire mooy li ma la wax léegi gis nga littoral bi ñu am six kilomètres. cinq cent par jour y' a combien d' hôtels y' a combien de restaurants y' a de terrain de football tey li ma la imaginer tey littoral bi soo ko jëloon créé fa ay terrain football tey terrain football football yi xew léegi da ngay jël vingt quatre heures sur vingt quatre day am ay match booy dañuy fay cinquante mille par une heure de ni tey jël nga ay espace def ay terrain ñuy fay par une heure de temps tey vingt mooy ñaata. ci cinquante mille mooy vingt quatre heures yi vingt quatre cinquante mille mooy mooy mooy mooy six cent mille par jour. mille par jour six cent mille par jour weer bi ñaata la weer bi lu mu dee dee na ma trois cent millions trois cent soixante million la année bi ñaata la. c'est ça c'est beaucoup c'est beaucoup hein c'est nga xam ne pour pour pour ay sportif rek la de pour ñoo xam ne da ko jël créé ko ñu fay fubal te suuf la soo xam ne ñu tëngee ko moom. mooy futsal yi moo koy jël defar ko. dina dina am kuy bale terrain bi dina am ku koy roose dina am ay arbitre yu fay adressé ñooñu joxoo leen emploi te du génn xaalis xaalis boobu ci assainissement tey ji bu fekkee ni am nga terrain de football bu lay génneel trois cent trois cent soixante million par mois tey ji boo ko afee année bi ñaata année bi. est-ce que est-ce que du ëppul milliard. c'est de l'argent c'est de l'argent. c'est que nit il faut ñu am ay idées. te loolu ñun dañu yàgg a tukki dem fu nekk ci àddina bi di gis loolu benn la ñaata otel la ñu mën a tabax fii ci littoral bi tey boo tabaxee hôtel. ki nga xam ne da nga am ñëw nga ni ko damay lay defal contrat de convention nga tabax fi hôtel Rufisque du génne xaalis jox la espace la lay jox mooy suuf yow nga tabax ci sa xaalis ñun la dañu lay defal contrat de convention 30 ans même bu fekkee ne man sama mandat jeex na beneen maire bi ñëw da koy continuer continuer te la yow nga indi say milliards investir te ngay tey ji hôtel boobu nga tabax ñaata Rufisque ñoo ci mën a liggéey soo koy tabax soo indee ingénieur bi koy defar di ko wax ni ko ñun am nañ ay maçon am nañ ay carreleur am nañ ay plombier ñooñu ñëpp mën nañ fa liggéey ci ouvrage bi ba keroog hôtel bi di pare bu hôtel bi pare nga leen tey hôtel bi fekkee deux cent personnes ñoo ci liggéey cent cinquante yi ay Rufisquois la ñu doon ay góor ak jigéen boo joxe emploi tey ñun dañu am espace buy def culture maraîchère di bay soble di bay pompiteer di bay yooyu ngeen soble ak pompiteer bi ngay jënd pour hôtel bi doo ko jënd ji fenn tëngéej nga koy jënde borom tool bi du yokk ku ñu koy solal saaku yi du ko ñu koy dagal cat soble yeeg yooyu noonu joxe emploi il faut ñu am ouverture d'esprit ñun dañu am programme un bon programme pour la ville de Rufisque donc loolu moo ñu taxa jog jóg ñu pour wut tur am nañ ko ba pare jóguñu parce que dañ soxla dépense parce que ñu ngi koy am yàlla ñuy dimbali mu ngi ñuy suturaal tabarkàlla donc dañu jog juddu ci dëkk bi yeroo ci dëkk bi bëgg a bokk ci way wi loolu moo ñu tax a jóg te incha allah le 23 janvier bii di ñëw xamal li ma la wax nii gis nga wax dëgg du romb ay nopp wax bu dafee nopp yi koy dégg dañu war a wér fii liñ fi wax yépp ci ay programme nag nga laaloo tuuti. xam ne lu yëpp benn boo ci def dafay génne xaalis. day développé dëkk. donc nag loolu moo ñu tax a jóg te yoon nañ ci nag yow xam nga un artiste. un artiste day am idée. Mm. mais mais mais mais euh, ci artiste boobu la si lay ñëw. un peu ñu gis ni maam dafa def benn pause musicale daal di concentré ci musique bi maam dafa bàyyi musique concentré wu ci politique bi wala dafa pause musique bi concentré wu ci politique. non man pause ma sax musique bi su ma amee bërki dem rek maa ngi doon joué fii maa ngi def naa benn waa Petrosen bi ñuy def seen seen inauguration maa maa fa doon joué comprendre la man du ma bàyyi suma métier. côté production je veux dire. du ma bàyyi suma musique man musique mooy suma métier maa ko taamu bàyyiwuma musique mënuma nag léegi chaque samedi ma tëgg mënuma ko quoi parce que. tey jii dama nekk ci loo xam ni élection laa jëm dans trois mois il faut ma lijjanti xaalis il faut ma lijjanti kii il faut may recevoir nit ñi yow tey suba yaa ngi fi ñëw def nga fi trois heures de temps yoo xam ni man ak yow nu ñu wax parce que puisque yaa ngi fiy ñëw maa ngi recevoir damay recevoir sama kër ba ngoon ma gën dem fekk ji nit ñi tamit ci biti damay xëy di damay xëy le matin ba guddi Rufisquois yi suba teel ba 14h ba 15h ba 16h damay recevoir par groupe su ma paree tamit damay dem fekk ci ay group donc yow mi fi ñëw gis réalité bi di nga xam ne maam Góor Waat nga jox nañ ko bopp. te incha allah nii lay demee. ku ni ku ni ku ni élection également ni campagne. te ku ni campagne ni budget. ku ñuy campagne xaalis est-ce que Mame Ngor taxaw na taxaw boo xam ni euh, génn ne budget bi nga xam ni moom la war a campagner wala xalaat na ni euh, bu bu bu ànd ak waa Rufisque wala xalaat na ni partenaires yi nga xam ne ñoo ne si gannaawam kat pare nañ pour ànd ak moom ci campagne yi ak lu mu laaj. xam nga nit da am ay mbokk mbokk du ñu nga bokkal ndey ak baay kese tu as des amis tu des relations man yàlla ma dimbali tey jii. yàlla boole na mag ay nit yu baax yoo xam ne xam nañ ni maam góor mi ku am ambition la ku bëgg lu baax la ils sont prêts pour m'accompagner comprendre la donc tey man rek tey dama yeew rek ay nit yu bari dañ may woo maam góor booy def sa campagne dinaa la jàppale ci lii ku ma woo ni ma naa la jox dix oto kii ni ma naa la jox essence kii ni ma naa xam nga yàlla moo def loolu tey dama yeewu nit woo ma ni ma naa la jox sept 4 x yu bees moo ngay campagne kii ni mën naa la jox lii comprendre la c'est que yàlla moo def loolu nag mooy defar dëkk mooy relation ni da am relation mais ñii fi nekk ay maire yoo xam ne dañ fi def sept ans mosuñoo dem ngaay mexe ñu defar dëkk bi. donc da nga jàpp ni maire da nga jàpp yi ne donc amuñu relation. mooy non boo leen xawee déranger wala mu wóor leen da nga leen di gagné ñu commencé naan kii lan la jàng un artiste. mais art nekk artist moo gën a jafe nekk minis nekk artiste moo gën a jafe nekk DG. parce que artiste soo ko nekkee dama lay jox benn benn affaire ki way marqué le pas un deux ancien combattant un nasuke du way boobu dafa war a bi yëpp te pourtant soo ko déggee ba muy toog di ko composé naan marqué la pa un di ko def noonu dafa ànd di ko mimer di ko mimer. ba jàpp ne lii mën na ko génne mu woo guitariste peut-être wala claviste toog ak moom wut rythme ba am rythme ñoom ñaar ñu wut rythme ba am rythme woo ñeneen yeneen musiciens yi ñu def seen composition dem studio enregistré ko pare promouvoir ko ba àddina yëpp xam ko ba nit mën ko déglu jooy. Mm-hmm. yow kook nga ne amul xam-xam. bien sûr. non non artiste ëpp xam-xam ci àddina parce que artiste rek kay wéet ci nekk jël bi nga fay bind dara di ko miime dajale ko dugg studio enregistré ko mu dem ba wër àddina ba nit mën ko déglu di jooy mu touché xolu nit ça veut dire que kooku ku ko ëpp a xam-xam amul d'accord euh, alors ñu gis ni euh, Ousmane Sonko am na fi dëj fan yi euh, ba président Macky Sall woo na ko wala jaare na ko ñu gis ni yow defe ko benn réaction est-ce que jaale ji nga ko wala woo nga ko téléphone jaale ko non man maa ko gën a am dëj parce que dëj bi ñiy gaañu Tëngéej lañ dëkk te kenn ki suma jarbaat la euh, yaayam suma sœur la donc avant Macky Sall sax di def euh, di def di def njaal defe naa Sénégal ba mu daj man maa si njëkk a jaale parce que booy bi gaañu da doon daan dooleem dañ ko jël mu dem assurer sécurité ñibbisi bisi muy ñëw di assurer sécurité daf lay du du forcément sa militant la xam nga des fois nit ñi dañuy jaawale militant ak kii xam nga euh, politicien moom lu xew rek mën nañ ci profité ñoo ni waaw booy bi patriote la woon wala nangam nangam je sais pas xaw ma lu si nekk mais xam naa ni daal booy bu correct la ku doon daan doolem la mooy profité nag ci occasion bi encore une fois comme tu m'as donné di ko jaale waa Rufisque yëpp di ko jaale yaayam xam nga di ko jaale waa Arafat waa sanc ba xam nga di ko jaale tamit euh, Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko tamit sénégalais la boo xam ne mu ngi ci réew mi jeunesse bi am ñu ko ci jox bopp donc tey bu àndeek ay nit nit ñi gaañu donc euh, rafet na même bu fekkoon ne faatuwuñu sax rafet na ñu mastawu leen donc ñu ngi profité ci occasion bi di ko mastawu bu baax a baax di ko mastawu sama bopp parce que man tey dama aspiré diriger Tëngéej te tey su ma diriger woon Tëngéej damay jiite délégation boo xam ne dañuy ànd dem au non de la mairie xam nga am lu ñu fa def te tamit loolu weesul incha allah war naa def benn délégation ànd ak waa Déclic dem kër yaayam seetu ko parce que yaayam suma sœur la. Hmm. Euh, de passage di ko jaale waa Sénégal également mais di ko jaale Ousmane le président Ousmane Sonko ak war euh, wërngal këpp ndaxte vraiment ay jeunes yoo xam ni euh, dañ doon daan seen doole comme ni ko grand bi waxee donc dañ ñëw ci eh, cadre élection yi ci boppam. fii ci Tëngéej euh, ñu gis ni Macky Sall am na fi euh, candidat moom la fi jiital muy Ismaïla Madior te ku ni maam Ngor ni Macky gis na ni maam Ngor Macky Sall la àndal te nëbbu ko euh, fu mu mën a dem fësal na ko ni moom la àndal pourquoi pas maam Ngor ànd ak Ismaïla Madior bi nga xam ni moom la fi Macky Sall jiital lu waral loolu. waaw xam nga da nga question bu délicat man boo xoolee depuis plus de cinq ans je suis le premier candidat déclaré. ci local ci Sénégal yëpp ba mu daj ba ñëpp di wax candidature maam Goor yaakaar naa ni boobu kenn waxul ay local donc du ñu bàyyi ba au dernier moment ñu ne local yi des na un mois président désigné parce que président ànduma moom pour may pour mu may désigner kan moom war a jiite ci sama local. dama ànd ak moom pour mu jiite ma ci Sénégal soutenir sa politique jàppale ko mais nag Tëngéej dafa feebar te tamit man dama jàpp ni man maay personnage bi nga xam ni maay. pur produit Tëngéej juddoo Tëngéej yaroo Tëngéej màggee Tëngéej xam li Tëngéej waa Tëngéej di daj ba pare tey fu ne nee maam góor xelu ñëpp dem ci Tëngéej yow tey ji yaa ngi may interviewé mais fu ñu maam góor sa xel dem ci Rufisque parce que je suis un pur produit rufisquois donc nag jàpp naa ni tey jii man maa yor lenge yi war a mun a defar Tëngéej donc du ma nangu kenn di ma tànnal sama maire Macky Sall nag bu ñuy tànn président mën naa ko woteel suñ ko attaqué mu mën a défendre dinaa ñu tànn maire je préfère dem ak sama bopp jéem defaral sama bopp sama gox mais du ma nangu kenn di ma tànnal koo xam ni. est-ce que loolu na yàq dara ci sa relation ak monsieur le président. mënu ko yàq parce que Macky Sall il est compréhensif nit la koo xam ni dina xalaat ni tey jii saa dof du jiite réew. réew bu ñu demee ba dénk la ko mooy ngay xalaat parce que Macky Sall xam na ni tey jii man bëgguma lu dul tënge Macky xam ne tey bëgguma lu dul moom. parce que maa ngi koy jàppale je défends sa politique nit ku yaru ku bëgg Sénégal et puis bilan bi mu am pour le Sénégal benn président mosu ko am dafa dajeeg nag ay bandi ay boy yoo xam ni xam dañuy jóg taxaw pour tilimal rek ku nekk xam nga saaga dafa yomb yor Sénégal la ngay gis ko yor téléphone am di saaga président xam nga Paul Kagame tey bokk na ci président yi naan ñoom moo mën ci Afrique moo fi gën a tout bërki dem la ko benn YouTube président dañ ko war a ragal dañ ko war a respecter tànn maire bi nga xam ni moom moo war a jiite encore une fois suñu gox man dama jàpp ni mën maa ko war a def loolu rek la quoi mais j'ai rien contre sa décision tey dinaa jàkkaarloog ñoom dem élection. Mm. te jàpp naa ni man maay gagné te su ma gagné moom moo gagné. depuis boobu jotoo benn appel ci président pour ci candidature bi wala daal. non non non xam nga tubaab moo ni qui ne dit rien consent. d'accord bu fekkoon ni peut-être ni loolu dérangé na ko wala dara dina ma woo ñu waxtaan mm. mais comme def ko rek veut dire que ni peut-être jàpp na ni il est conscient de ce que je fais. Mm. donc loolu rek moo am solo. Euh, Atia mi ngi noonu euh, mesdames et messieurs très chers téléspectateurs de Dakarnet comme à la euh, vous savez très bien on a l'habitude euh, de vous servir et nous sommes passionnés également de vous donner du bien et le maximum de ce que vous cherchez alors reste coaché comme ni nga koy waxee grand message bi ngay lancé waa Rufisque message bi ngay lancé euh, sa naataango yi nga xam ni ñoom nga nara a àndandool dem li nga xam ni moo li ci élection locale yi. waaw moom mooy ñu def ko dans la discipline def ko dans le respect def ko dans la paix. parce que Tëngéej benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñun jàmm ci la ñuy dox ci jàmm la ñuy wax ñu bëgg nag tamit Rufisquois yi muy góor di jigéen di mag di ndaw ñu xam ni maire yi fi nekk nii dañ fi nekk dañu leen faloon pour juróomi at Macky yokkal leen ci ñaar mooy deux ans yi nga xam ne amaat nañ ko bénéfice muy sept ans yoo xam ne kenn gisul benn pax bu benn maire gas ci Tëngéej Tëngéej laay lancé message bu ñu nangu benn ancien maire benn maire bu fi nekkoon dugg seen kër yi di leen campagne naan day porte port parce que man pour man loolu insulte la pour les Rufisquois mooy ñu la fal juróom-ñaari at am pax sax fatoo ko am ñàkk jom dugg si biir kër yi naan leen wotalaat leen ma donc Rufisquois yi ñoo war a am fulla am fayda ku ñëw seen i kër ci maire yi fi nekkoon ñu dàq leen te tamit bu ñu nangoo far ku fi dëkkul du ma ne kii dëkku fi wala kii mais tëgg ab dëkk soo ko bëggee jiite da nga fay am bàjjen am fa ndijaay am fa goro mm-hmm. la falee nga mën leen yërëm ñun ci dëkk bi lañ dëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee te nañu bañ déglu naan noo kii c'est un artiste warta jiite artiste la mu mën ku dul artiste mënu ko Youssou Ndour ngi ni il a créé sa société kenn mësul gis kenn ku takk brassard rouge ni weer wi dee na fay ñu ma te gis nañ li mu fi def gis nañ ku mel ni Serigne Boub kokki la jóge gis nga tey jii il fait partie des gens yi nga xam ni ñooy développer le Sénégal donc nag je encore une fois au Rufisquois le 23 janvier incha allah ñu voté booloo defar Tëngéej te tamit ñun suñu coalition rek moo nekk coalition boo xam ne dañu respecté parité ci noor bi ñu juutal ci madame Yoni Thiam Wade ñu bëgg nag jigéen ñi nga xam ne tey jii dañ doon dem ci marché bi coono yi ñuy daj di damm ndox mi sonal leen inondation sonal leen pauvreté sonal leen ñu jàppale seen mbokku jigéen bi nga xam ne mooy yónni ci am incha allah ñu votel ko ci noor bi mu gañe ndax maire bi fi nekk muy maire Mané liggéeyul dara loo xam ni war na mën a taxaat ñu fal ko te yeneen prédateurs yi nga xam yëpp dañoo bëgg maire bi kenn ku ci nekk mas jaar ci maire yi wala ñi am nañ ay problème foncier ñi am ay problème donc nag je lance encore une fois un message aux Rufisquois de voter pour booloo defaraat Tëngéej. merci beaucoup Aïcha merci beaucoup ça a été un plaisir de vous servir ça a été un plaisir euh, d'être avec vous xam ngeen nii bu baax a baax comme ni ñu koy euh, faral di defee dañoo nekkoon tey ki nga xam ni moo di suñu invité spécial notre invité d'exception maam Gor Diazaka fii ci Tëngéej euh, di leen jaajëfal bu baax a baax ci àndandoo bu rafet bi ngeen ànd ak ñun ak lépp ñu mu daal di doxee fii ci biir Dakarnet di leen jox rendez-vous ci ba neen invité sur la même scène Dakarnet merci beaucoup à la prochaine.